عم فرا خالد mẹ mẹ quá thì lắc mét rồi lắc mét rồi moom <laughs> oh, mënuma muñ lool. waaw <laughs> oh, oh. ah, mais xaaral waay yow. Thank you. ആ അംസേ ഓ അംസേ തരാങ്കിൽ ഓയ് സന്തക്കായ് കോക്കാള്